moom laa pour gars yi mobiliser wu par rapport à ces milliards aussi carrément. non da la dama ne la loolu du neen. li tax yàlla bàyyi ba moment bii nii. Ah, mu ne non Covid bi lañ ci sàccoon naa liñ ci sàcc ëpp na 6 milliards. ñii liñ fi sàcc 6 milliards moo ci gën a tuuti. Mm-hmm. il faut ñu arrêter di perdre suñu temps ci loolu. Sénégal nañ bàyyi fu leen Macky Sall ñoo dañu fekk ko fa. nañ nekk ci focus essentiel. Mm-hmm. taxaw booloo nekk benn say jëlee fi pouvoir bi jëlee fi Macky Sall changer institution yi. Mm-hmm. yàlla bu ndaree nattu xeet yërmande li biir. te billaahi Sénégal yàlla dafa dindi yërmande suñu biir. maa lay wax lu garaaw. ñun ci nekk la ñuy nekk ñu jàpp la di dugal seen xaalis. pour am xam ne wax nii de. maa lay wax lu garaaw yàlla dafa xoolal lii mere la Sénégal xoolal maanaam yàlla yàlla dafa mere Sénégalais moo tax yàlla mere ñu na ko Sénégalais yi xooliwaat na ko Sénégalais yi xoolal la moo tax yàlla mere ñu may ñu may président bu mel nii. xool bi toll ni 0,5. <laughs> non du caaxaan non dañuy waxtaan rek parce que du hasard parce que loo gis am na lu tax. Macky Sall am na doole peut-être dëgg la mais yàlla moo ko doole ji moom. Mhm. lu tax ñoom ñu toog ba seen xel di nekk ci gën a noog askan bi ñàkk yërmande gën a fitnaal nit ñi ay sàcc yu porté plainte ay nit yu nekk ci pouvoir bi ay nit ñu ñeme yàlla ay nit ñu ragal yàlla jàngalkati alxuraan ay nit yu set juddu juddu bu set sàcc ñu fenn ñu leen tëj ci kaso yi di leen weer di leen jiwu fi yow di leen toroxal di toroxal imaam yi toroxal jàngalkati alxuraan yi di dóor yaay di dóor mais loolu ko Sénégal xoolaat njaam Mhm. dañuy waxtaan jàpp na Sénégal yi xoolaat loolu nañu xool li ñu dund ci réew waa ji nii lan moo ko waral. Mhm. Mhm. parce que yàlla bu natt wax bu meree xeet buy dóor ñëpp lay dóor ñii mu nekk natt ci ñoom ñii mu nekk mbugal ci ñoom. Sénégal yàlla fi ñoo mere man dama comprendre loolu ma nekk en prison man dama comprendre ne lii nii yàlla daf ñu mere di ñu dóor dama jël sama wàll. <laughs> toog rek ne imam bi lu ko dem état moo ko yooyu ñu dóor ma ñeenti yoon quoi <laughs> yàlla daf ñu mere di ñu dóor. boo bëggee jubal dëgg Sénégal boo fi ne da ngay jubal dëgg yàlla ne xaaral ma ñëw boole la si nattu bi. c'est vrai. la demee léegi nag ñun c'est à nous maintenant de revoir nan la ñuy toppee homme politique. Mhm. ban nit la fal yan critère moo nekk si lan moo tax war a topp nit. àndal mhm. ki ñuy àndal kan la responsable yi ñuy jël suñu diine lan moo tax ñu jël ko yow chrétien nga nan nga nekkee chrétien est-ce que yaa ngi dund sa christianisme. Mhm. est-ce que respecté nga ko sa engagement ak sa religion. yow musulman yow lan moo ban sa ñaata saar nga mokkal juróom-ñaari saar. booy tari di julli xamoo sax looy wax yàlla xamoo sax lu saar bi di wax <laughs> nga jàng ko lu toll ni yàlla di jaxase waa chapitre xamoo looy wax yow lan nga def pour sa religion non dañuy wax dëgg quoi njàpp yow tu es policier pourtant tu es musulman tu es né policier mais da nga agent assermenté nga taxaw da nga waat servir da ngay servir la république ngay servir <laughs> njàpp ay kilifa diine ay imam yu bàyyi heure julli dem toog politicien ne ko yaa tax wu ñu julliwuñu tisbaar jaral nga ñu ko <laughs> ça c'est grave njàpp ay nit yu jàng alxuraan jàngale ko ñu jàpp leen dóor leen tëj leen dóor leen ba tuur seen bët askan wi la ñuy di leen seetaan ñu topp ay mille ndax 2000 francs 1500 nga xam ne 2000 francs jàpp mënul jënd sandwich bu baax. Hmm. sandwich bu baax 2000 francs mënu ko jënd. c'est vrai léegi peuple boobu ban peuple la. Mhm. Sénégal boobu ban Sénégal la. bi moo ëpp mun naa la wax sànq ne la seetaan moo seetaan xaj bi noonu. Hmm. seetaan moo ñu dal seetaan bi moo ëpp moo tax yat bi kaw. y a plus et quand les gens parlent boo tey boo waxee tey boo waxee benn affaire boo xam ne arrangé wu leen rek ñu ne tey ñu dee on te traite de tous les noms. bu fekkee da nga wax loo xam arrangé na la rek toi tu es le prophète tey. c'est vrai tu es extraordinaire les commentaires vont être extraordinaires. Mhm. suba boo nee lii d'accord ma si ñu loolu tax nga naan d'accord. dëgg la cette pensée unique kan mooy wax te yàlla tax. kan mooy am ragal yàlla ci intérieur am. booy jug ngay wax nga ne maa ngi ñaan yàlla li may wax fii ma wax ko te yàlla rek tax te xool ma lu ci neex kenn. njàpp lii mooy problème mu Sénégal. c'est vrai c'est vrai. dama lay wax dëgg lii mooy problème Sénégal dañuy perte suñu temps rek nga toog taal sa portable di xool kuy saaga ay ndey di saaga yaay jàmbur suba ba ngoon jot. wallaay soo saaga sa yaay bu mu la naqari. c'est vrai wala mu saaga sa leader. bu mu la naqari. c'est vrai. <laughs> dégg naa dëgg Abdou par rapport ak terre bi euh, voilà mhm. il y a un débat aussi. Mhm. Euh, par rapport ak terre bi mhm. euh, gis nañ le journal Le Figaro di xamle ne terre bi France moo ko moom. mais finalement gis nañ éclairage nga xam ne. gouvernement bu président Macky Sall apporte na ko di xamle ne carrément Sénégal moom moom à 100 pour cent euh, li nga xam ne mooy terre bi mais exploitation bi rek euh, leen jox euh, société française boobu mais aussi il faut rappeler que terre bi fu mu toll ni en terme de rentabilité lu mu waroon indi li nga xam ne moo nekk état bu Sénégal finalement mun nañu wax ne rentabilité bu amul <laughs> boobu débat aussi surtout entreprise français yi visite yi président de la république euh, Macky Sall aussi visite Marie Le Pen en France euh, au Sénégal aussi Abdou Karim euh, loolu yëpp noo ko jàngatee. jàpp xam nga man déjà damay commencé ci ci ci Le Pen. Hmm. lii Sénégal dañu war a xam seen bopp quoi parce que kii ndaw si ah. mënul hmm. boo xamul li musulman français yi di dund li africain yi di dund foofu. lu étranger di dund biir France. moom la hmm. bi nii kii xeex yi ñu xeex yàlla Mohamed yëpp moom moo nekk ci moom bokk na ci lu koy dooleel. kii il fait partie des xoola les plus méchantes gën a ñàkk respecté doomu aadama. déet waay non loolu ah ñoo xamoo ko yow. <laughs> créé dara de kii kay ay imagine ñu ngi fekk ay discours am. mun nañoo jàpp kii dëkk bu mu dem nit ñi dañuy génn manifester ne bëgguñu ko fi Sénégal la ñu yaatal ko. mu dem ci baykat yi ñu ànd ak moom mu dëbb def kii te chaque jour mu xeex dañuy génne Sénégal ay France Macky Sall recevoir ko ma defal ko dédicace ci livre bi <laughs> cest dama bëgg wax dama la bëgg wax la xoola dama la bëgg wax nii la may ko benn livre quoi le Sénégal au cœur xaw hmm. may ko benn livre quoi daal di dédicacé xam monsieur le président xam Marine Le Pen nangam nangam hmm. cest lii Sénégal rek la am Sénégal mooy koo xamante ni xoola dama ko wax chaque fois ma ne la bëggul xeetam bëggul suufam bëggul mbokkam bëggul bëggul dëkkam Sénégal moo mel noonu hmm. rek ay complexe lañ loolu bokk na si li tax ñu sonn. moo jàllee si kii ñu ñëw si. Euh, terre bi terre bi. Euh, njaab terre bi. dañ ñun moomuñ ko quoi. mais njaab entre nous ñun loo moom yow. Sénégal loo fa moom. dama lay laaj rek. man lañ ci bind chronique franco-africaine. <laughs> nga bëgg a jàpp ne on est étranger dans nos dans nos. yaa moom CFA bi yaa moom. moom moo CFA bi yow li jënd ka CFA moom xam nga xaalis boo moomul sa xaalis boo amul souveraineté monétaire yow moom moo dara. c'est que gars nañu bàyyi léer yi ñuy léer ak nelaw yi ñuy naan ay teer ak ay teer ay hélicoptère xoola fii kenn ñoom moomu leen dara Sénégal yéen xam leen ni moomu leen dara yéen moomu leen teer bi yéen moomu leen moomu leen dara. ah teer bi kat ñoo ko moom dégg nga si que la. ñu yàpp moom moo ko palais

bu ñu koy bu ñëwee en CFA tubaab bi ñoo am ba pare soo koy am partenaire soo koy am donnant donnant ci ñu moom ñun ñuy soog a séddoo li ñu moom noonu ñun. c'est-à-dire yow dara yow bu dem Mbour péage ngay fay <laughs> tubaab bi ñoo ko moom yow téléphone bu baax orange bu mën a publicité. orange ngay seen euh, o kii moo fa nekk euh, nu mu tudd Suez xaw. Mm. Euh, vas-y lan nga moom yow moom moo sa bopp pas indépendant. Mm-hmm. tu pas indépendant te dara esclavage la woon. ñu dem ba gis ni main d'œuvre bi léegi ñoo am nañu a defar ñu wàññi esclavage ne dañ koy abolir jugéen ci esclavage ñëw ci euh, colonisation ñu dem ba colonisation gis ni léegi affaire yi xam nga mi ngi bëgg ñaaw mën nañ si am nañ nit ñu formé ci école française nga xam ne ay benn ñu la mën nañ leen jàppale ci liggéey ñu ñëw indi colonisation bàyyi la fa ñoom Senghor ak ñoom Macky Sall parce que Macky Sall ci boppam produit France la Macky Sall ci boppam produit France yow multinational la Auchan Auchan par exemple am moom moom kan moom moom Auchan kan moom yi accord partenaire économique yi nga xamante ni duñu fay benn impôt duñu fay fay dara mhm. moo tax boo demee benn butéelu Evian buy jar buy jar fii ci biti boo demee mhm. man baa dool bi Karim nga xam ne man damay dem leb fond ju ma def cent mille pour sama doom lekk ko Auchan du <coughs> bu daanu fu ma kon yow ñun français moom lépp fii man damaa bëgg ñu bàyyi tardé ay terre yow moom moom président bi président bi moom moo ko xool xool ko xool xool la ñoom ñaar kii moom moo ko kii moo ko Macron moom moom moom Macky Sall. dañoo bëggante. waaw amul bii nii. photo bi photo bi dafay wane dañoo bëggante. waaw ah, bëggante bii moom laa moo moom moo sa bopp ku am sa doom bëgg ko France moo ñu moom France moo ñu jur moo ñu moom suñu constitution France moo ko moom suñu institution France lay toppandoo suñu lépp fii même programme d'éducation bi école française sax ah, programme la bu ñu dañu programme ko proposé ñun amuñu histoire Sénégal amuñu suñu programme amuñu suñu jàng toppuñu suñu aada toppuñu suñu culture toppuñu suñu religion nekkuñ ci dara lu ñu moomul suñu bopp. kon on arrête ak teer bi terre mu mujjee ñëw ci lu ñu moomul. man man loolu daal laa mënul si expliquer quoi vraiment Ndiaye. <laughs> sacré Abdou euh, internet yi voilà ñu ngi si waxtaan bi ba tey Abdou mhm. euh, dafa mel ni comme